Heavy Mess.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 lii nee ñu xel mi neexul <clears throat> ma ne waay nii la mën a demee waa ji xel mi neexul nag nee ñu dafa menacé waa immeuble bi mu dëkkaloon ne leen ñoom ñëpp lay faat ñu bari ñu dëkkoon ci immeuble bi dal di génn daw ci la ñu fekk góor gi M6 mu ñàkk bakkanam ñu faat ko ba noppi dal di koy lakk waa ji tàggoo xelam te ñu njort ni moo def yëf yi nag police bi mu koy teg loxo mu ngi ko fekkee ak gourdin ak paaka mu ngi ngi wuyoo ci turu Kaaba am lu toll ci ñeen fukki at M6 mi mu faat nag mu ngi am lu toll ci juróom benn fukki at te sax nee ñu M6 moomu xaritu Kaaba la woon <laughs> waaye moo tax ma ne xaritoo ku tàggoo xelam wóorul de mbir nee ñu nii la demee cëri conk ab waaju taggoo xelam buy wuyoo ci turu Kaaba moo fa yee ñu mu luweloon doon ci benn immeuble menacé leen ne dina leen rey vers une heure du matin boole kook tàngoor goo xam ni jéggi na dayoo naka noonu ci la ñenn ñi mu luyeloon dal di fëx alerte police bi gaa yi dawee génn immeuble bi nag ci la waa ji tàggoo xelam passé àllak xam naa dafa taal kër gi ba sapeur yi ñoo mujjee ñëw fay lakk gi naka noonu nag ci lañu ñu woowee police ñu ñëw fekk waa ji tàggoo xelam nekk ci tempérament bu doy war tàng jàpp yore gurdem ak paaka ci la fexee ba ne ko niib nangu ngànnaay yi naka noonu ci la police def constat Fouta gis neewu M6 fekkee ko ci condition yu doy war mu lakk ba xam ay way ci lañu continuer constat yi gis ci immeuble bi ay trace de sang ak pantalon boo xam ni dafa taq ripp ak deret naka noonu ci la police scientifique ak technique tuggee ci yëf yi jël kooru M6 yóbbu ko ca hôpital Aristide bu Dantec ma mooy li ma waxoon rek réew moo xam ne pa boo dox gis ku tàggoo xelam te zéro politique des malades mentaux yu mel ni du fi jóg ma ne de jàngoro ji dal réew mi moo a graaw korona la wax la xew ca Kolda doy na waar ab surveillant CM la ñu fa teg loxo ndax da doon violé ab jigéen bu tàggoo xelam <laughs> waaye xoolal ma mbir mi mu ngi xewee ca collège bu Ndorna waa def njombelu rëy li nag ñu ko tegee loxo ca quartier bu nakan nekk ca commune bu Kolda surveillant CM boobu ñu jiiñ viol nag ci jigéen bu tàggoo xelam mu ngi wuyoo ci 3 fi mu ne nag teg nañ ko loxo ba defeere yoo ay waay moo tax ma ne mim réew daal mooy loolu moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Tiwaawan na waar ñaari jakarta man daan ñoo fa jàppante ba kenn ki jël paaka faat ka ca des inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbir mi nag nee ñu nii la demee dimanche bi weesu ci la ñaari jakarta man yooyu xuloo xuloo bu tàng ci xuloo boobu nag la ñu jàppante ba dee njaay di benn jakarta man bi jël paaka jam beneen jakarta man yi ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam te njaay nag ci bis boobu mu defee njombali mu def ci lañ ko tegee loxo bi ko enquêteur yi dégloo nag nangu na ne moo faat way way way way way seytaane baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca mbuur ca maalikunda bambara romb na doy war ab waay daal moo fa bett jabaram ci àll ba moom ak beneen waaye ñu pëtalaw yëf yi nag nee ñu ni la demee waa ji dafa am ak jabar ji problème jabar ji jóge kees dem ca mbuur ca maalikunda bambara ne naka noonu waa ji nag bi doomam feebaree mu ñëw doon ko seet si waaye nag ci comportement jabar gi jaaxal ko bi jabar ji génnee ay booru 19 heures waa ji yolos ndànk di ko topp ak otoom di ko topp di ko topp mbétérik ëntër ba jabar gi ci biir àll bi dugg ci beneen oto waa ji taxaw ko sedi fil ci la jabar góor gi ne ca moog waa ji toog toog toog mënatu ko muñ mu génn oto bi mu nekkoon daldi di ngoobu birig ñoo fekk leen ñoom ñaar ci bi ñu nekk di def naka sudul noonu waaja jël birig ba toj para brise ba pëtëlëw faru jabar gi nag ci la yaakaar ne ab dafa leen mu génn jàppanteeg waa ji raak fa raak bu metti moog waa ji ba ku nekk gaañ moroomam gaañ ju metti waayi jabar gi nag bi mu demee ba mënatu ko muñ ci la yuuxoo wàllu waa koñ ba ñëw bi waa koñ ba ñëwee nag ci la farwa taal oto bi ne may dem waa ji newaat fa di jàppanteeg jabar gi ma ne nag daa neexul nag fekk sa jabar beneen góor ji kawam neexul li gën a doy waar ci mbir mi nag ci kanamu faru jabar gi biñ ko laajee nee na jabaru waa ji musu koo wax ne daa am jëkkër may may ma ne réew mi dafa garaw da ngay am jëkkër am far soos fii soos fa ca des moo tax réew mi umu moo tax ma moo tax ah li kenn mënu ko wax waay réew mi toj na ba ba ba ba sam de